spectateurs yi nga a xam bismillah inna wàlli yàlla asbi yàlla wa ma tawfiqi illa xanaa di sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa di sant sama sëriñ Cheikh Mouhamadul Mourtada Mbacke di sant sëriñ Sakko Mbacke bii fi jógee léegi ah di sant suñu xalifa sëriñ Mountakha Mbacke ibnu Cheikh Ahmadul Basir xalifatu Mouridia di ko am taxawaay di koo xamante ni sagal nga murit yëpp di koo xamante ni dimbali na murit yëpp di koo xamante ni jàppale na murit yëpp fépp fu murit ne ndimbalim agsi na fa ci yow ci taxawaay yoom yu rafet ah di santit suñu bokki taalibe yi nga xam ni ñoom la ñu nekkal fii ci dëkk bi di mbokki jullit di sunu imam ratif bi nga xamante ni léegi la fi jóge di Mouhamed Wade di sunu xarit di suñu soppe di suñu wóllëre jotal na ci sëriñ bi kàddu yu rafet yoo xamante ni mu ngi ko jëlee jëmee ci suñu jëmm ji ñoo ngi koy sant bu baax ci taxawaayam te di ko ñeewante lool nag ngir gone la ñu jël dëkk bi lépp def ko imaamu raatif teg ko ci kawam moo tax dama ko ñeewante fu ma toll maa ngi def ay pexe di ñaan yàlla di def ay waxtaan di xool nu ñu ko war a daggale salaire boo xamante ni dañ koy teg ci loxoom mu taxaweel ñu fii féete ñu fii ñu féete ko fii loolu maa ngi koy sànni mu di loo xam ne message la képp ku dëkk ci Kër Moussa na nga ci bàyyi xel bu ko defee loolu fu ñu daje maa ngi ko yéene léeg-léeg ma génne ko ci sama kàddu yàlla na yàlla sàmmal nu ko nag ndax sunu xarit la sunu wóllëre la sunu am di jàmm la sama soppe la yoo xam ne mënu wax sax li fi ma jaar ba sopp ko dama mos a def fii ay jàng xay na mosaase diina yi ca bokk ak ñeneen mu am ay waxukaay yu ñu war a def ñu ne ko dañu koy jël andi mu ne bu sëñ Ousmane soxlaa dañu ko koy jox loolu bokk na ca la tax ma gën koo sopp bu sëñ Ousmane soxlaa dañu koy jox waxukaay yii te ñun ñu ñu wuti ko feneen rajo yi dama ko koy jox ñun ñu wuti ko feneen xam nga yooyu taxawaay mu def ko yëg nañ ko ak yeneen ak yeneen yoo xam ne su ma ko doon wax day mel ni day mel ni day mel ni day mel ni waxtaani foofu rek la féete ah di sant sëñ Cheikh di sañ sëñ Imam Mbay Ndaw di sant mbokki taalibe yi nga xamante ni it nu ngi fii ci dëkk bi la tàmbalee ca Baye Mut Seck bi fi jëkk a doon jëwrin Alaaji Yuusu bi fi doonaat jëwrin ak ñi nga xamante ni ñoo wàññi taxaw liggéey bii nga xamante ni ñoo jël teg ko ci suñu kaw dañoo jàppale Mouhamadou Diop Fall mënu ma koo ñàkk a tudd Serigne Moustapha Seck mënu ma koo ñàkk a tudd Ibrahima Imam Mohamed Imam Mohamed Sow mënu ma koo ñàkk tudd ak ñi nga xamante ni ak Cheikh Jaxate bi nga xamante ni léegi la fi jóge moomit yaram bi xaw a kii looloo tax sax ndeysaan ba ñëwul fekk fi sëriñ bi yooyu yëpp di mbooloo moo xam ni ñu ngi wër suñu jëmm ji am ci noonu yaakaar di sant tamit ki nga xamante ni moo di bàyyi mu ndaw mag bi jiite daayira sëñ Abdou Karim di santit Mouhamadou Mbeng bi nga xamante nit mooy def ñaar fukki fan yi bu ko defee di santit ñi nga xamante ni ñëpp ñu ngi nekk ci dëkk bi di bokki taalibe am ak ñun jànn di ñaanal Adama saar bi nga xamante ni yàlla jëlee na ko fi mu doonoon sunu genn wàll moom duma wax sax ni su mais sunu genn wàlla la bu ko defee ci dogalu yàlla te yàlla lu mu def noonu la mais xajoon na fi mais yàlla bu ko defee rek dañuy ànd ci dogal bi yàlla na yàlla dolli ay leeram fasaale nañu ko ci kaamil yi ñu doon def yàlla na yàlla dolli xéewalam dolli jàmmam dolli ay leeram waaw kon bu ko defee sëñ Karim Ndiaye sama xarit la sama xaritu wayjur la keroog bi ma toogee ci jumaa ji maa ngi lox bi ma bëggee yëkkati kàddu yi mënatuma ko téye ma wax baay àll Gueye Ndiaye ni ko sëñ Abdou Karim mii danaa seede ci moom ba sama baay ñuy denc sama baay mu ngi fa nekk bokkoon na ca ña tëye di def sama baay ci biir bàmmeel ñeen fukki at ci ren bi mu noppaloo dafa mel ni dëj boobu dafa beesaat ci kanam te maa ngi fàttaliku denc ba noor la woon muy taw sëñ Mansoor nee woon nag ndox mi comme laal sa yaram araamal na sawar moo tax ma wax leen ni leen kii texe woon na démb tey soog a ñëw waxi sëñ Mansoor jooju noonu laa ko gëmee moo tax bi mu noppaloo ci nisfu saxabaan man leen kii nisfu saxabaan bii xëy na firnde zaahir la bu nit ñi mën a am tàbbi woon na àjjana booba ndax li sëñ Mansoor waxoon gëmoon naa ko noor kundung ñuy denc sama baay muy taw sëñ Mansoor ni ndox mi comme laal sa yaram araamal na sawar tel te war noppi laaloon na sëñ Abdou Karim Ndiaye ma dellu jaale waat ko mbokk ya fekk fekkaat fa euh, euh, doom ya fekkaat fa wëllëre fekkaat fa xarit ya ñoom sëñ Modou Fall ñoom ñëpp ñu may dellu waxtaanaat ak ñoom daal di fekk Serigne Mbaye Ndiaye mu joxe kàddu yu rafet di seede ñëpp ne ñooñu samay wëllërey baay lañu lu ma dox ci ñoom sama baay laa koy defal. moo tax may suuxat sama wólla di diggante ak ñoom de sant nag waa Touba de sant sëñ Muntaxa xalifatul am de sant sëñ laay bii nga xam ne moo yor Kër mu sa TV Kër Moussa TV bii ci mbir yi la bokk dafa waroon a teew démb ba tey ba ma ba ma ko tàmbalee taxawal ak léegi ëpp na 15 ans booba xale bu ndaw la Omar Wade magam dem bàyyee ko matériel bi mu di ko ñëwal léegi mat léegi mat 20 ans dem naa sax ba naa xale sa tuuti si nu mu mën a yore matériel mais yaram ak tegginam ak taxawaayam. demoon na ba man koo taxawee ba def ci loo xam ne sax dafa gën a rëy na mu toll woon kon yàlla na yàlla gën koo yéege ba mel ni làmp Fall noo ngi ziyaar ñëpp di balu àq ñëpp di sant di gërëm di sant mbooloo ñi nga xam ne ñoo ma teg ci seen kanam ni ma yaa fi jëwri ni Serigne Touba na yàlla dogal nu mate ko ci seen kanam yàlla bu ñu gis benn rëq-rëq yàlla bu ñu am dara lu leen naqari ci seen jëmm ji yàlla bañ a def dara lu may naqari ci seen jëmm yi yàlla boole nu dimbali. xam nga <laughs> jërëjëf xam nga xam xam nga sëñ laay da am yéene mais am na sous préfet bu fi newoon booba la Mamar di soog a falu 2002 ñu koy wax maanaam euh, sëriñ bi nekkoon sous préfet Madoune Mbuub moo fi daan def CRD sëñ tàkko bi da xam ne booba mu wax ne sëñu Ousmane jërul nga may wax sax. at bu jot maay ñëw def CRD bi maay ñëw teewal sama bopp soo woote ànd ak gendarmerie ñu escorté ko ak policier mu ñëw def fi waxtaan booy ñëw àndaale eh, Mamar yàlla di loolu def nañ ko fi ma 10 ans ndax ren jii mooy 29 ans diggante bi nag sëriñ bii fi jógee gannaaw bëggul lu xumb moo ma ne ma sëriñ bi bàyyil jàngi guddi yi gannaaw bu ñu ma defee jëw den ren nag ah ma ne ko na donga yi gontuwaat tuuti ñu xool ba déwén ak déwén jéeg ndax bëgg naa koo yaatalaat donga yi gis ci seen bopp kenn ku ne jàpp ci ñaan nañ ma ko ñaan naa ko sëriñ bi mayaat nañu ko kon incha arab bi buñ ca delloo xalaat naa mën naa gën a yaatu ni mu toll woon gën a rëy ñoo ngi bàyyi loolu xel bu baax di sant di gërëm bu baax bi di santet mamar am na ndaw yu mu yónnee ñu am gàllankoor ne téléphoné nañ ma ni sa Ousmane ñoo ngi ci yoon wi mais mamar defal na délégation mu ngi mu ngi ñoo ngi ñëw ah soxna député soxna Aram Ndiaye bii di suñu député bu mësta am ci Kër Moussa yàlla teg ko ci loxoom ci ay taxawaayam ci am gërmeem ci maanaam ak taalibeem ci yaroom ci tegginam dangay toog ci nit ñi ñu di ko wax ba da naan sax macha allah yàlla na yàlla lafal ko cat ndax dafa doon taalibe bëgg boroom këram am taxawaay am ci nit ñi taxawaay def social te booba doole ji bëriwul lu mu am joxe ko yooyu nit ñi seede nañ moo ko ndax may taxuloon ma miin ko lool. mais ñun ma sëriñ bi kii day lii mënu ko woon ñàkk am ñaanal ko ñaanal ko yàlla ndax yan bii tegee ci kawam fekk mu ngi ko doon liggéey démb tey sogoñu lu mu musaan am bokk ko nit ñi lu muy néew ak a bari bu ko defee loolu ah yàlla moom du joom lu mu def rek noonu la kon bu ko yàlla yanee yan bi ah am na lu tax yàlla def ko nit ñi ñoom du ñu xam waaye yàlla démba ak tey ak ëllëg lépp yam ci moom bu ko defee dana def démb nit ñi soog koo gis tey kon yàlla na yan bi woyof yàlla na yàlla defal ko ndimbal di defal ndimbal mamar bi yabal delegation di defal ndimbal soxna maam Fatou Ndiaye waaw di sunu mbokk di sunu sët di sunu doom di sunu jarbaat waaw waa ko waa di sunu deret di nuyu tamit maanaam ne la biir leen waa daara ji soxna yi sama wayjur bu jigéen yi sët yi doom yi ñëpp maa ngi leen di sant ak jarbaat yi yàlla na yàlla dolli ci ñoom tawféex dolli ko ci mag yi dolli ko ci rag yi di solli waa bitim réew nag foog ko ma laaj ko seen laaj foog ko ma laaj ko ci Paate Jaañ laaj ci Souleymane Jaañ laaj ci sëñ Basiiru Gay laaj ci sëñ Aliou Mbay mi fi jóge léegi di laaj ci sëñ rawati sëñ Basiiru Gay ba muy tukki Italie la ma ne sëñ ñaari mbir moo ñor sa jàng yi màggala Tuubaa gi bul ma ci soññ lu bëgg a mat vingt ans mosu koo tardé waaw di sant Souleymane bu baax daamar ji ñuy joxe daamar ji ñuy doxe moo ñu ko lijjantal te loolu jàppandal na sunu yan bi woyafal na sunu yan bi boolu di sant Daawuda Jaxate Araabi Saudi bis bu set ma dégganteeg moom ba mu fa demee ban am ci ñun yaakaar kon noo ngi ñaan lépp yàlla boo leen dimbal ñi ma fàtteeg ñi ma fàttewul ñëpp yàlla def nii ñëpp yàlla def ci ñoom xéewal ñu am ay milliards amee million ba ñibbiseeg jàmm ah loolu noo koy ñaan te lii daal moom Touba KKM bii Kër Moussa TV bii na mel ni Lamp Fall rek waaw na jolli ni sooroor bi jollee mel ni Lamp Fall ba àgg fépp ci àddina bi te yow mi ko taxawee yàlla musal la nga dëgër doog a mën a dëgëral euh, société bi na doon société bu taxaw bu dëgër yàlla wàcce ci million ki milliard bi jaahi Seydina Muhammad wa bi jaahi Xaadimu Rasul wa bi jaahi Cheikh Madul Mortada wa bi jaahi sëriñ Tàkko Mbàkke moom Cheikh Seydou Mouta mu Xaadimu Rasulillahi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu